di sant di gërëm nag coalition bi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñëw tey euh, coalition jot na président Sonko jiitu ko ak Bruno Darnaville mi nga xam ne tey moo jiite coalition bi ñëw seet si tey commerçant caaro yi ki seen jafe-jafe yi ñuy dund commerçant yi nag am ci mbégte trop ndax ku ne xam na ne feebar massa faju ko waaye dal na xel kon ñoom ñëw nañu tey wax ñu massa kon ñu ngi leen di tàllal loxo di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla itam seen tànk yi yàlla ba mu doon tànk yi niil ndax marché bi dafa sonn sonn ci anam yu nekk nag bi ci jiitu nag mooy suñu problème ak ndox mi nga xam ni loolu rolu meer la woon waxtaan nañ ceeg moom ba trouvé ci ay solution yu avancé ñu ngi ci bi ci des mooy terre bi terre bi moom ñu ngi xamal ne président terre bi da xaw ma fan lay teereeg moom waaye ñu ne fi mu teereeg ñun baaxul ndax rey nañu terre bi tëj nañu marché bi kenn mënatul dem kenn mënatul dikk ñu ngi leen di ñaan teer bi passerelle li nga xam ne moo war a wàcc jëm ci marché bi dara amu ci lépp loo xam ne tey accès boo xam ne waa marché Thiaroye commerçant yi ñu koy soxla rayal nañu leen ko marché Thiaroye ni mu toll nga xam ni Afrique yëpp benn marché la boo xam ni ñëpp naan marché Thiaroye sous région bi fu ne di jógee région yi ci fu ne la nit di jógee amul foo xam ne foo xalaat rek ci àdduna ci Afrique te amul te accès ci marché Thiaroye waaye ñëpp am problème ndax marché bi kenn mënatul dugg kenn mënatul génn ndax dañu ko tëj benn buntu kese lañ ci daje conteneur yeeg camion yëpp ci la ñuy daje bu ñu dajee nag embouteillage say dem kenn du dugg kenn du génn loolu nag problème la bu sérieux boo xam ni ñoom war nañ ci taxaw ci nu mu gën a gaawee ndax nit ñi sonn nañu ti ñi fi nekk nag ay liggéeykat rek lañu surtout nag xale yi fii am na fi xale yoo xam ni am nañu ay master am na ay ay licence yëpp a ngi fi li ay kaani li ay bisaab li jaay ay naajo di poste yi nga xam ne ministère yi war yor nañu ko ñoom am nañu lijaasa yooyu te amuñu benn liggéey loolu nag état moo ci war dugal loxoom te xam ne fii caaxaan nekku fi te li fi nekk ci ay cadre tey buñu leen bàyyi woon ci mbedd mi musiba am waa négociation yi nag euh, ñu ñu mi ngi sore ndax euh, bi ñu déclenché grève beeg léegi tey la vingt quatre jours yoo xam ne maire jotul taxe 24 jours loolu ñun ñu ko def sax xam nañ ne métti na ci maire ndax maire caaroy gi mooy léppam maire amul usine yoru ay hôtel station sax benn la ci am caaroy kon léppam ci marché bi lay jógee kon bu seetaanee ba marché bi toll fii ba commerçant yi ba banque seen loxo xam na ni métti na ci moom même commerçant yi ko def avant ñuy ko avant ñuy geraw def nañu benn point de presse ñu ñun solution bi ñu am rek mooy geraw geraw nag ci la ñu jëm mais bëgguñu ko li tax bëgguñu ko mooy même employé yi nekk maire yi di liggéey di jot seen salaire doomi réew lañu doomi ci doomi réew mi la ñu bokk te dañoo war dund comme tu le monde di ñëpp di dundee chaque fin de mois ñu jot seen salaire kon lay gàllankoon seen salaire ñun bëgguñu ko ba ñu ko waxee nag d'accorduñ ci kàddu moo taxoon ñu téye juuti bi benn fan la ñu geraw kenn ubbiwul après li ci des yëpp dañuy ubbi mais kenn du fay juuti mais ubbi bi sax pour ubbi ba ubbi la rek mais amul sens parce que am na am na ci yoo xam ni ba bët CB ba léegi ñu ci trois mois yoo xam ni jaayuñu kooku xam nga ni bu nee maa ngi ubbee dafa ubbi rek pour la forme mais mais mais jaayul léegi nag euh, sous préfet bi fi nekk woo nañu ay yoon ñu waxtaan ak moom démb rek moo ci mujj ñu waxtaan ak moom waxtaan ma nag avancé na parce que moom vraiment nit la koo xam ni nit ku nite la euh, ay xalaatam rafet na déglu nañu ko déglu nañu déglu nañu li ñu wax maire it maire déglu na ko am na ci point yu bare yoo xam ni maire nangul nañu ko bu ñu nangulee nag li ñu bëggoon ñun it li ñu daan def rek dañ cay dellu di ko def rek